bu ma duggee léegi. Mhm. fekk naa waal yi ak xale yi ak ñoom bugaar ñëpp ma ne leen di courage mhm. ndax kilifa gu toll nii bàyyi su wàccee ay xale dangay mel ni dañ la yóbbu ba ci benn àll ñu bala nga war a débrouiller génn ci yal na yàlla jàppale vraiment am nañu tey euh, yeewu bu metti métti métti na ko yàlla xaree àjjana vraiment am nañu tey lu métti métti métti métti métti ah Youssou banaaw ba nga déggee information bi te information bi na la la def ba nga xëyee yow bu dégg ko information bi moo yee ñépp moo yëkkati ñëpp ci lal wàcc leen ndax naan loo xame ni bu xewee buntu amatul jóg rek mooy donc mbettel day war day war day merci beaucoup Youssou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

Thione moom a faire découvrir euh, la musique moderne sénégalaise. Mhm. ndeysaan parce que dafa ma daal jël man ak moom ak Doudou Seck. Mhm. ñu dem fekk ji ko balafon. Mhm. toog moom yëg ci kaw la sur la scène woy ba 5 heures du matin ñu pare ñu duggaat suñu clando ñu di pité dem jël suñu ndékki ku nekk dem këram. li ma gën a neex ci Thione nag sama digganteeg moo mooy sincérité bi nga xam ne moom la suñu amitié amoon.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

Je wax perte la musique sénégalaise parce que c'est un grand parolier. Mhm. un très grand musicien un très bon musicien. Mhm. quelqu'un qui chante juste qui ne chante pas de def ay fausses notes. Mhm. qui a une mélodie c'est exceptionnel mais en même temps quelqu'un qui il a compris très tôt que la musique doit entretenir les gens c'est quelque chose qui doit ne da nga participer éduquer sa population. éduquer la jeunesse en tout cas sur ce plan là je dirais vraiment. 37 zéro faute. Eh, yéen ñaar kan ngeen wàllu kaddu yéen ñaar yow ka weer. Mhm. ndax bi ma bi dem Podor parce que yàggul bi ma jógee Podor la ma woo par le biais de Diodj suma technicien. Mhm. mu ne gis nga li ma initié damay invité ay personnalité de la culture di waxtaan ak ñoom. Mhm. ci musique sénégalaise kañ ngay ñëw. ma ne noonoo non ma ñëw parce que yow da nga may dugal ci ay waxtaan yoo xam ne bëgguma ci dug maa ngi dem Podor dama am réunion mu ne xamoon naa ne doo ñëw boobu laa gëj a waxal. abon nagkakadiri dia.